أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ci turu président de la république président Macky Sall maa ngi nuyu di ziar Serigne Mountakha Bachir xalif général kullu murid di nuyu njaboot ak Serigne Touba yépp di beral nuyoo njabootug sëriñ Basiru maa ngi nuyu mboolem njabootu Cheikh Sëriñ Touba yi nekk fii ci jataay bi di nuyu kilifa diine yi ak kilifay yi aada yépp yi fi nekk sëriñ bi président dafa ñëw fi yónni ñu ànd fi ak délégation ñëw ci bés bii ñu ràññee ci délégation bi ministre Mame Thierno ministre Birima Mangara ministre conseiller Mor Ngom gouverneur de la région de Kaolack préfet département de Nioro sous-préfet Paoskoto ministre euh, spécial Cheikh Mbacké Sakho Madame Seynabou Ndiégué présidente conseil d'administration sëñ Jili Mbacké chargé de mission Modou Mbacké Bara Dolli responsable politique Lamine Bara Gaye Fallou Fall ambassadeur Mamad Ba directeur général Aprosi député Jéema Ndiaye Ba ak député Gadiaga département de Nioro maire département bi responsable politique yi ñépp ñëw gunge ñu ci turu président de la république sëriñ bi am nañu mbégte lool président yebal ñu fii ci sama sëriñ ci sama wayjur ci bés bi ñuy tuddee màggalu Poroxaan sëriñ bi xanaa ba ñuy tàmbali rek dañ leen di seen mbokk suñu mbokk suñu cheikh daaru rahman mi nga xam ne démb bi badaaxal bi tàbbee ci suñu nopp laata ñuy dem conseil des ministres yeggale nañ ko président ba mu def ci taxawaay bi ci war sëriñ bi président de la république nee na gis na taxawaay bi ak ñaan yi waxoon nga ko bi mu ñëwee ci yow di wutaat réew mi nga ne ko dama la ameel bor booleel naa laak Sëriñ Tuubaa mu fayal ma sëriñ bi man ci sama jëm bopp waxoon naa ci màggal gi ne président Macky Sall lépp li muy def ci dëkkub Touba lu ko war waaye ma fàttali woo nit booba ne sëriñ Touba ku ko liggéeyal mu fay la na ma ko defale woon Blaise Diagne ba mu wut xëcciwut député sëriñ bi waxtu wi daaw man la suñu borom wërsëgale woon ma ñëwoon fii ñu koy santaat bu baax bi mu amaatee ren ki ñu fii defal màggal gi muy sunu maam soxna jaara buso jaaratu laay ku màggal bésam danga ci am ngëneelu yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak bu sëriñ Tuubaa ndax jaaratu laay jaamukat yàlla la waaye ku amit ngërëmu boroom këram la woon mbërëm bu baax boobu mooy suñu maam Mor Anta Sali suñu maam Mor Anta Sali nit ku baax la woon doonoon nit nit koo xam ne kii daaw peut ñu koy waxtaane ci lu bari waaye ni ko naaru gànnaar ba Mouhamadou Abdoulaye waxee ci téeréem bi ñuy wax nafaatul miskiyatu mu ne cheikhan aliman sëriñ bu amoon xam-xam moom sëñ Momar Anta Sali waaye amilan bi ilmihi ku jëfe woon xam-xamam la bokk na ci wàllu yi nga xam ne daawuñu jaxasoo ak nit ñu bari dafa daan taxaw di naafila guddi di woori bëccëg boroom fatku la woon doonoon boroom xam-xam bu kowe ci yàlla ku amoon teraanga ak barke mi ngi jamono gane woon jamono 1820 génn àdduna 1882 liggéey bi suñu maam soxna jaara bu si doon liggéey ci wetu boroom këram sëriñ maam Mor Anta moo tax mu am ngërëmal yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ne doomam Fatima jëf jigéen ji ci ji jëf ji gën ci jëfi jigéen mooy topp sa boroom kër maam jaara moo dàqoon def lu rafet ak lu baax ci kër boroom këram moo tax sëriñ Momar Anta Sali nee na maam jaara bu su mii musuma mere musuma merlo maam jaara jaamukat yàlla la woon jigéen ju baax la woon ku daan joxe alalam ci jaami yàlla yi ku daan jëf lu baax la woon ni ko sëriñ Basiiru waajur sëriñ Muntaxa bu waxe woon ci téeréem ne maam jaara ku baax la ku sàmm la ku am diine la ku bari ay julli la ak yoor ak i sarax ku jébbal boppam boroomam waaye ku toppoon sëriñam bët yi sëñ Mamoor Anta Sali yàlla fayee ko Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu Mouhamadou Abdoulaye di mu tuddoon léegi nee na bi nga xamee ne leeruk Sëriñ Tuubaa mi ngi ci soxna si te ganewu bu loon àddina ak lu ndox ñàkk-ñàkk musuta julli te jàpp at mi sëriñ bi ganee jamono bëccëg yi daf ko daan woor bi sëriñ bi ganee jamono musu koo nàmpal te jàpp lii mooy wane ne soxna si ku déggoon diine la ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na tere nañu leen ngeen di lekk ci kaw ngeen di yor janaba ndax loolu day tax ngeen ñàkk am xel ak wërsëg loolu mu ngi téere bi ñuy wax kitaabul makaarimul laxlaam Cheikh Ahmad Bamba radiallahu taala wax na ne yàlla jéggal na samay ñaari waju jéggal na ma yépp man Cheikh Ahmad Bamba mu ne lam yaxfa kawnullaahi lii alay yaxfara li suma lii waalidayya kama xafarta lii sawital uqbiya noonu tamit la yàlla jéggalee mbooleem li aju ci moom lii rekk war naa tax bu sëriñ bi woote ñépp war a wuy si rawatina bésub maam jaara bi nga xam ne ci moom la lépp doore sëriñ bi président sumb na fii ci dëkk bi liggéey yu am solo wàllu infrastructure bu ngeen fàttali ko waxoon naa ko fi daaw bi tax ñu mën a jéggi xur wi liggéey bi ñu ngi ci àggale na fi salle de conférence yu war a nekk bibliothèque Porokhane ak musée Mame Mor Mame Diarra Bousso salle de réception bu téeméeri mètre carré ak juróom fukk war a tabaxaat école Serigne Moustapha Bassirou fii may wax ak yéen ñi ngi élaboration plan directeur d'urbanisme ndax kenn ku ne xam ne dëkk bi laaj na ñu defaraat ko plan de détail ak plan de lotissement am nañ jàpp ne fii ñetti weer mu pare liggéeyu esplanade bi junniy mètre carré également daanaka dem na ci xaaj ak résidence des hôtes bi fi président yéene sëriñ bi sa ñaan mus sa jóg ci président ñaanalaat ko gannaaw bi mu jotee waat ci réew juróomi at yii nga xam ne yii moom lay waaj a tàmbali le 2 avril yomb lool ci moom di njiglaay ci moom ak njabootam ak ci réew mi yépp maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi baalu ak ñëpp asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf Sëñ